kon dina ko gis mais kooku bañu loolu mais quand même que les gens ne versent pas dans la subjectivité des critiques parce que ci critiques yooyu waaw ah. yaa yaa yaa Bougane euh, mu waxee mooy par rapport ak euh, le le lien entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye nee na 100 jours nga ne ma dooma présenter bilan ba pare 100 jours nga ne ma premier ministre yaa ko gën a baax la ci histoire politique du Sénégal c'est contradictoire mais loolu Bougane mais loolu Bougane mënu ko mais loolu Bougane mënu ko weddi quel est le seul premier ministre qui en 100 jours ñoom li ñu fi def ñu def ko c'est-à-dire que man li mu bëggoon Bougane mu ne ma secteur bii xam nga Bougane ba mu génnee il a été dans les généralités te dafa ñëw ci ay confusion yoo xam ne man je reviendrai là la la dessus sur les chiffres concernant les fonds politiques de la présidence donc bu ñëwee di critiquer man j'aurais compris mu ne agriculture def nañ ci dara baykat yaa ngi jooy éleveurs yi ren tabaski bi ça ne s'est pas bien passé ren transport bi ça ne s'est pas bien passé ren élevage bi ça ne s'est pas bien passé ñu ne ok nga ñëw nga ne dans la reddition des comptes ba léegi rapport yi fa mu nekkoon ma nga fa kenn génne ko jusqu'à présent alors que ça a été une promesse que bu ñu ñëwee rapport yëpp dañ koy déclassifier loolu ba ñu ñëwee rapport yi ne sous le coude de Macky yëpp génn nañ ko au moins en attendant maintenant de voir j'engage des réformes au niveau de la justice. yow ma engagé samay réformes ak réforme majeure yi ci nekk yëpp nga ne déedéet boo ñëwee rek da ngay doxal waaw mais bala nga doxal sax mais da def ay réformes comme que justice bi ça se au nom du peuple mais tu appelles les qui constituent le peuple c'est les différentes du peuple ku ci nekk soo ñëwee nga joxe ci sa xel ak sa xalaat. loolu mooy mën a permettre après ñu ne puisque la justice est rendue au boobaa ne ku ci nekk joxe nga ci sa xel sa xalaat ñu tënk ko ba pare def ko loi les ñu def loolu. yow nga ne loolu nga ne nga ne loolu doo ci teg sa bët agriculture on a mis cent vingt milliards subvention nga ne loolu doo ci teg sa bët producteurs yi ñu fay leen seen quarante deux milliards nga ne loolu doo ci teg sa bët ñu wàññi engrais bi wàññi wàññi wàññi euh, comment dire semence yi yow nga ne loolu doo ci teg sa bët ñu distribuer ko de façon transparente yow loolu nga ñëw taxaw ne doo ko wax mais finalement lan nga bëgg. bon maintenant tu parles de fonds politique et cetera loolu sax man nañ ci ñëw. ci fonds yi nañ ci dugg ah. directement parce que moom. parce que fonds yi li si bëggaan wax fonds yi. li am. ou bien moom non dafa xam nga fonds yi président bi lu mu wax man je n'ai pas trouvé de fonds mais il va falloir que les gens quand même sur yan fonds la ñuy wax on a parlé de fonds politique fonds politique yooyu moom la ñu tuddee les fonds secrets bëggaan boo ko déggee dafay def confusion entre même c'est-à-dire que moom fonds xam nga fonds politique moo tuddee les fonds secrets. Mhm. ba pare nee na bon bu fonds politique yi newul où les fonds spéciaux mais lu ma xamul mooy c'est que dans la nomenclature fonds secret c'est un fonds spécial. Mhm. fonds pour la solidarité euh, euh, africaine c'est un fonds spécial. fonds pour le euh, euh, comment dire secours et solidarité c'est un fonds spécial. kon lui il a confondu les fonds. non xam en fait buñ ne fonds spéciaux cest dire que dafa am ay différentes rubriques yoo xamante ne nii. bu ci nekk c'est un fonds spécial yooyu yëpp lañu tuddee des fonds spéciaux c'est-à-dire que loolu boo gisee ñu tuddee ko fonds spécial xam nga lan parce que ça échappe tout simplement aux règles tout simplement de, de transparence classique bi ñuy xam dans l'exécution d'un budget parce que bu ñu exécuter budget dañ naan par exemple génne nañ lii xaalis bi génn nañ lii voté nañ ko lii génn na dañu xam dépense bi fu mu dugg mais bu dee man maintenant fonds fonds fonds spéciaux yi c'est par rapport à la nature du semence des mi ngi mel ni par exemple tey ñu ne fonds secours solidarité mm-hmm. je crois qui tourne autour de cinq milliards mm-hmm. ñu ne nit feebar na bu nit feebaree mm-hmm. mais loola da nga ko ciy jël dugal ko ci parce que en fait ce que les gens ne savent pas ñoom dañu foog ne ci fonds politique yooyu ci ngay tëb alors que dafa am fonds boo xam ne spécialement dañ ko dédié pour pour pour pour pour bi ñuy wax euh, solidarité africaine xam nga il fut un temps au niveau de l'Afrique gars yi ñenn bu ñu daan xeex pour leur indépendance xaalis yi nga xamante ne ñoom dañ ko daan soxla pour ñu leen koy dimbalee cest à ñuy xeex surtout la présence des colons ici je prends par exemple l'exemple de de la Guinée-Bissau ñoom bi ñuy xeex ak portugais yi mais il y a eu beaucoup d' intervention yoo xam ne mhm. ni Senghor da daan dimbale régime en place bi pour ñu mën a xeex gars yi mais loolu du budget bu ñu wote assemblée nationale loolu dooy ñëw nga ne voté ma tel fond ma dem jox ko par exemple ñii ñu xeex ak ñii. kon loolu mooy fond politique. non cest dire que loo loolu cest loolu loolu bokkul ak fond politique. d'accord c'est-à-dire fond bi. waaw ah. fonds yoo xam ne dañ ko alloon président. Mhm. moom ci boppam moo daan xool lu ko neex au plan mu def ko ci mais yooyu mais c'est un fonds spécial. Hmm. léegi aussi li nga xamante ne nit bu feebaree nga dimbali ko ci loolu ci secours et solidarité ci la bokk aussi loolu aussi c'est un fonds spécial. parce que lii brouillard financier la yàgg nekk. waaw loolu la en fait loolu mooy loolu mooy wax bi. waaw loolu mooy wax c'est-à-dire que ni nga xam ne moom lañ ko exécuter toujours ça ne se fait pas dans la transparence mm-hmm. xam nga bu ñu nee fonds secret xam nga en réalité mën naax ne sax c'est pas secret. ce qui est secret mooy c'est-à-dire c'est l'utilisation qui est mhm. secrète mhm. mais nit ñi xam nañ fonds yi nu mu parce que boo xoolee presque fonds yi yëpp boo ko doon xayma tout tout ça ça tourne autour de vingt milliards mais vingt milliards yooyu nag dafa nekk ci ay ay rubrique léegi nag boo déggee Bougane bi muy wax mu ne donc su fekkee ne ana fonds pol fonds politique yi newuñu fi où sont les fonds spéciaux mais ce qu'il ne sait pas c'est que les fonds secrets et politiques c'est d'abord un fonds fonds spécial bi c'est-à-dire fonds spéciaux yi moom mooy rubrique générale bi léegi nag dafa am ay pàcc. Hmm, ay pàcc quoi ay pàcc. léegi nag fonds politique fonds politique fonds secret. waaw et cetera quoi. fonds politique de solidarité en même temps moom mu ngoog solidarité xam nga fonds fonds secret yooyu ñuy wax sax en même temps da soit dañu naan fonds secret ou même même rubrique la. donc c'est fonds kooku aussi c'est un fonds spécial. Mmh. donc amul différence entre boo nee ak fonds spécial. léegi nag moom li mu ci wax mooy. mooy 22 milliards ont été consommés. waaw mais soo déggee ni mu waxee c'est comme si dafa jàpp ne moom 22 milliards yooyu. 22 milliards yooyu. Hmm. c'est mmh. comme si 22 milliards mooy mooy les les les les fonds spéciaux ou bien les fonds politiques or 22 milliards yooyu c'est par rapport au budget de la présidence de la République. Mmh. le budget de la présidence de la République ça tourne autour de 80 milliards. Hmm. léegi bu ñu nee 22 milliards ci. mais loolu ça ne concerne pas ça ne concerne pas uniquement les les les comment fonds secrets. Mm-hmm. cest dire que am na ci loo xamante ni dégagé nañ ko pour fonds secret mais am na aussi loo xamante ni dégagé nañ ko pour le budget la présidence parce que boo xoolee budget présidence am na foo xam ne da war a dugg def investissement am na foo xam ne da war a intervenir fii am na foo xam ne war a intervenir fii donc budget présidence bu nit ñi jàpp ne budget présidence bi yëpp ce des fonds secrets déedéet. Mm, d'accord ci budget présidence c'est-à-dire que vingt milliards li ci des dafa war a dem investissement li ci des dafa war a dem bon pour la sécurité li ci des dafa war a dem feneen ak feneen ak feneen donc ay foofu aussi ay rubrique ay rubrique la. d'accord mais soo déggee Bougane bi muy wax. Mhm. ba ne 22 milliards ont été consommés où est le reste. waaw mais la reste même Sonan où est le reste c'est-à-dire que mais du xaalis boo xamante ni dañu ñëw 80 milliards yëpp ñu dugal ko président de la république. Mhm. boo soxlaa xaalis kay nit ñi xam nañ fan la génnee xaalis fu ñu koy dekesee. nu ñuy def ba mais c'est comme si dañuy jël quatre-vingts milliards yëpp tout d'un ñu ñëw présidence ñu ne nañ ko dafa ñëw daan ne fekkuma ci quatre-vingts milliards yi fekkuma fa daan non Diomaye n'a pas dit ça. Diomaye parle Diomaye parle des fonds spéciaux qui tournent autour de vingt milliards mhm. léegi nag vingt-deux milliards ont été consommés ci budget présidence de la République te loolu soo ko xooloon tey fi mu nekk nii en pourcentage c'est-à-dire vingt sept pour cent du budget de la présidence ont été consommés en trois mois. Hmm. te moom daf ko daf boo ko déggee mooy daf ko xeeb. alors que c'est grave parce que trois mois lañ def. trois mois kese trois mois lañ def. Hmm. vingt sept pour cent du budget de la présidence quatre vingt milliards yi on a consommé ça. ça veut dire tey bu ñu topp rythme bi balaa fin d'année di nga dañuy defaat beneen loi de finances rectificative pour yokkaat budget présidence parce que lii trois mois la c'est-à-dire que c'est janvier trois mois en trois mois on a consommé 27 pour cent du budget de la présidence qui tourne autour de milliards donc bu mu jàpp ne loolu 80 milliards yooyu yëpp ce sont des fonds secrets déedéet ci 80 milliards yooyu 20 milliards yi ñooy des fonds secrets alors que aujourd'hui la présidence consommé gul nañ milliards. d'accord loolu leer na nañu. léegi ba mu waxaatee encore mu ne pour le budget général encore de la présidence foofu encore benn confusion mu ne 24 virgule 30 pour cent lañ ci consommé waaw on se perd vraiment dans ces chiffres. Mm-hmm. parce que 24 24 virgule 30 yooyu xam nga xam nga c' est par rapport à quoi. c' par rapport au budget général. du mm-hmm. Sénégal c' à dire li ñu voté ci LFI bi. loi de finance initiale bi li ñu ci voté. c' à dire tey li ñu nga xam ne moom la ñu jot a exécuté. Mm-hmm. en trois mois. c'est-à-dire que boo ko doon xayma en pourcentage c' est vingt trois virgule trente pour cent. c' est vingt trois virgule pour cent mais loolu c' le budget. d'accord général cest à du Sénégal mooy cinq mille cinq cent trente trois milliards yi. Mhm. cinq yi pour l'instant consommé gul nañ ci vingt trois virgule trente pour cent. mais soo déggee Bougane aussi bu mu waxee mu ne vingt quatre virgule trente pour cent OLRS waaw mais yow budget général nga koy laaj président de la République budget général qui concerne l'ensemble des ministères nga naan président bi OLRS cest que moo tax ma ne la il s'est même perdu dans ses chiffres te gis nga xam nga aussi dina leen. bëgg a critiquer baax na mais il faut toujours préparer ses interventions xam nga dañu ne Bougane daf ne euh, président Diomaye dicté préparé la def. Mhm. mais dicté préparé moo gën improvisation. parce que dicté préparé boo ñëwee yow lañ la dicté sax di nga ñëw wax ko te bu ñu lay defal dicté préparé au moins dina am cohérence mais xam lu bon mooy improvisation parce que moom il a improvisé sa sortie au point que et puis ce qui est grave c'est parce que tantôt tu penses que le budget général moom la ñuy jaawale budget de la présidence tantôt tu dis que budget de présidence de la présidence moom la ñuy jaawale même l'ensemble des fonds secrets en réalité moom c'est ce qu'il a fait dans son intervention ne ko nit ñi dégluwaat bu je ne reviendrai même pas sax ci erreur commettre aussi sur l'inflation parce que foofu aussi c'est benn affaire la <laughs> voilà non non nga mooy non il y a autant de confusion euh. ki a fait une communication où il y a eu beaucoup de confusion et les gens ne sont même pas capables de faire des pour relever loolu mm-hmm. ça c'est un problème mm-hmm. même journalistes yi xam dañ ko bind nii sax mais ils ne sont même pas rendus compte de l'énormité de, de, de ces bêtises là ils ne sont même pas rendus compte de ça alors qu'en réalité moom li mu wax yëpp ce ce sont des li mu wax yëpp ay bêtises la non c'est des confusions là là je t'assure lépp ay confusions là parce que problème bi d' abord d' abord mooy. moom problème calcul moom daf ko am. non da man la même jaxase bi sax fonds politique fonds secret fonds secret et politique dañ jàpp ni c' est un fonds spécial fonds bu jëm pour la solidarité africaine c' un fonds spécial fonds bu jëm sur les exonérations douanières c' est un fonds spécial beneen rubrique bi ñuy wax aussi pour les transferts aussi c' est un fonds spécial. cet ensemble là nag moom la ñuy wax les fonds spéciaux parmi ces fonds spéciaux nag il y a les fonds secrets et politiques te fonds politiques yooyu ça tourne autour de vingt milliards. loolu de leer na donc vingt deux milliards yooyu muy wax vingt deux milliards yooyu c'est sur le budget de la présidence mais ci vingt deux milliards yooyu mais am na ci loo xamante ne nii moo concerné les fonds politiques mais fonds yi fonds politiques yooyu gisatuñ ko. loolu président Diomaye wax. leer na de. et maintenant le aujourd'hui celui qui c'est Macky Sall qui doit démentir. Mmh. c'est du Abdou Mbow qui doit démentir déedéet c'est pas Seydou Gueye c'est le président Macky Sall moom ci wàllu boppam moom ma ko lekk te wax ne moo ko lekk moom moo doon taxaw mu ne man lekk ma ko mais ñeen lañ ci wax xamuñu dara ku ci toog di wax sa lamañ nga yore di wax mais kenn xamul ci dara parce que Macky Sall fa mu dugal xaalis bi ñoom xamuñ ci dara. këyit ya nga xamante ne moo nekk biir présidence ñoom xamuñ ci dara seen lamañ lañ yor di wax am fit rek di wax non seen lamañ lañ yor di le terrain politique c'est Abdou Mbow qui la cadence au sein de Yaakaar non ça signifie que franchement ça signifie que tey Benno amatul parce que fekkee ne quelqu'un qui n'a jamais gagné son bureau de vote c'est lui qui mène la cadence au niveau de Benno Bokk Yaakaar non problème franchement non Benno am nañ problème mais électoralement parlant Abdou Mbow qu'est-ce qu'il représente